waaw Coumba ko dal vraiment euh, képp kuy artiste boo boo xamee li ci way boo xamee li ci bëgg sa métier surtout que moom ni ñu ko gisee ni ñu ko xamee c'est une battante elle s'est battue ba yegg fi mu yegg gëm na boppam gëm na liggéeyam euh, te bëgg na li muy def boolew ko caaxaan donc lii bu ko dalee da ngay yow en tant qu'artiste da nga naan man lii bu ma daloon imagine sentiment boobu nga yëg loolu rek nga yëg envers elle ci kaw loolu ma am na une grande solidarité ci li ko dal di ko ñaanal yàlla yàlla delloo ko baatam parce que Kumba dafa war a way ndax ñi muy bëggal dafa bëri ñi muy bëgg dafa bëri ba tey bu wayulee dina am ñoo xam dinañ wéet ndax seen déggatuñu seen chanteuse moom aussi le fait que di passion muy métier muy liggéeyam mu mën a dellu ci liggéeyam parce que nit ci sa liggéey ci sa passion rek ngay mën a épanouir je suis que Hmm, je suis sûre que fi mu nekk tey épanouissement bi mu waroon am amu ko parce que c'est ça sa passion loolu la bëgg loolu la bëgg di def donc damay ñaan yàlla yàlla delloo ko baatam muy bëggal ay fansam di bëggal waa Sénégal di bëggal waa àdduna parce que c'est une battante et elle mérite yàlla delloo ko baatam ba mu heureuse ci ci liggéeyam parce que vraiment euh, am na ñu koy xaar ci ci ci li muy def ni muy bëggal bari na maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla saafaraal baat bi te incha allah yàlla dina ko def ndax mi ngi def lu nekk pour mu nekk elle y lu vraiment le temps le euh, patience bi euh, te mi ngi koy sabablu te yàlla na ko ci yàlla jàppale donc dellu ci liggéeyam.